waa Sénégal waaye salaat waa àdduna te dama si l'âme du peuple ki nga xam ni moo daan ay noonam démb ak tey ki nga xam ni moo baax ni baax problème ba ñu baax ci baax wax baax ba sa jur baax kër baay baax ma fas yéene fi ñëw tey jii dafa moom diw ma fas yéene ñëw fii tey ñu way way démb ma fas yéene ñëw tey fii tey ñu way way cosaan ak aada Alaaji Pawlish Mbaye Alaaji Pawlish Mbaye mm. mm. Malakoto Mbaye ñamaxi teraale way ci panaan ñamaxi yaa bëgg boo borom Cees doomu nday coog kii mooy ñamba ay ñamba ay ñamba kookoy ñambaxi Alaaji Ñambaaxe Alaaji Pawlish Mbaye Alaaji Ñambaaxe Alaaji Pawlish Mbaye kii mooy Ñambaaxe Alaaji Pawlish Mbaye Alaaji Ñambaaxe su ma la moom yàgg lool ndeysaan ay waay dalaay ah. ay waay dalaay ah. ah. Alaaji Pawlish Mbaye ndeysaan gàtto ndeysaan lo aha ay nu baay nga Alaaji Pawlish Mbaye ndeysaan Alaaji Pawlish Mbaye Ñambaaxe police boy. diir fone boo xoolee delloo ci indi sama xaalis bugguma diir fone parce que taal bi laa gàtt daa sol. Alaaji Pawlish Mbaye. Alaaji Pawlish Mbaye. Alaaji Pawlish Mbaye. Eh aywa su dama ba yàgg lool. Eh aywa xel lay dem ci. Eh aywa Alaaji Ouzin Keita. boo ko waxatee dinaa ñu sotti ay projet taa tamit dafa. waaw waaw kon Alaaji Pawlish Mbaye. aywa Alaaji Pawlish Mbaye. ñamaa ci day loo. ndeysaan ci petit gàlle. aywa Alaaji Pawlish Mbaye. Alaaji Pawlish Mbaye. ak IJKN NOP YYZ lay mu gaañu dix mille tatam daa gàtt gémmiñ gi xasaw biir bi di daw mu wànk non kon dix mille ba mu waxat ca loolu. kon Alaaji Pawlish Mbaye. ñamaar Alaaji Pawlish Mbaye. kii mooy ñamaar. Salvase. Rosa Salvase. yow Salvase. Rosa. Salvase. Jaraka ni ma jaraka. ah jaraka ni ma jare. ñamba. Jaraka ni ma jaraka. police may ah jaraka ni ma jare. ñamba abada tiriri. ay bada. ko sool Bael dem ma ko sool ay Bael dem ma ko sool Bael dem ma ko sool lay lay la laaw Bael dem ma ko sool xol dafa toj. ndeysaan li nga li nga dem ni benn dix mille la ci des baa nga téye ko jënd ci euh, courant. parce que ñamba tey seet bi nga wax seet dafa xaw a solution. yow Pawlish Mbaye maanaam lii dugg leen ci man. parce que ñoom ba bëgg nga bëgg suñu borom yëpp a koy seedee. kullu kullu kuy dof dof yëpp mën nga ci ànd mën nga ci yërëm. mën nga xam ni maay dof bu am voiture. Mhm. voiture kilim sangu kilim du sangu piscine. ñamba tey ba ma defee tey bégte moom su ma leen di mën yow. ñamba fi nga dëkk nit ñi la laa fonk muy Thiès kaay yi. Mm-hmm. Thiès googu nga xam ne ginnaaw suñu borom bi artiste fa am muy yow. Mm-hmm. yàlla na suñu borom defal jàmm. jërëjëf yàlla na la yàlla may nii nag. Mm-hmm. dama la ko may ne ko parce que même la ko ñàkk suñu borom da lay lii du guleet. du tey nga may soog a woo ba sa kër tëj sa néeg yëkkati xaalis bari jox ma. su ma la gisatoo ñama dinaa la xalaat xalaat xam naa ne tey sa kër dina neex loole. Pawlish Mbaye may sa waa nga daan ànd. ñama may Pawlish Mbaye di may xaalis. Pawlish Mbaye nga may teral di ma yëdd. yow ñam ba. sayoon dinaw yi tooy. ñama eh. su ma la gisatul gisatul ñama dina la xalaat xalaat xalaat eh. yee. xam naa ne ay sayoon. xale bu gàtt bi yow taay Dubaay. taay ko taay Coca-Cola il est gentil. ñamay xale bi gàtt il est attirant. taay Coca-Cola il est galant. yow ñamba. ndeysaan. tey sa néeg dina neex loole. tey dinaa sangu piscine. dinaa lekk viande. il est il est attirant il est mignon. il est gentil il donne de l'argent. ñamba li du dara. parce que waxi dof mu am barke laay def ñamba xeet. sama gisatul. gisatul ñamba. tukki naa tukki naa jindi naa kër. ay ñamba Ablaye Mbaye dinaa jindi kër man. xaalis bi ma lay may jënd ci caleçon. waaw xaalis ma ci may jënd ci nana. ak frigo. ak ak président ñamba su ma la gisee bu suufee bu ma nekk bëgguma nga suuf ay bëgguma nga suuf parce que sama yaram dafa xaw a sori kon nañ benn way bi ñam ma ko xam ne yoon lu baax des